yow mii di gis yàlla ak toogaay ak yi ko wër dangay nelaw gént am yow xol bi moo ko jeneer yow mii di gis yàlla ak toogaay ba ak yi ko wër dangay nelaw gént am yow xol bi moo ko jeneer ñëwal melal li nga gis daa tuuti am dafa rëy ku gis lu kenn mës la gis war naa melal la ca biir xanaa la yàlla waxoon Muusaa ma koy wut gis fa tuuri siina a nekkul faw laaye ju leer subhaanahu maa ngi tuubal nopp yim jota dal tuubal ko gët yi ne yeeyaay gis na yàlla bu wóor xajul ci am xel xajul ci gët xajul ci xalam te am na ciy gëstu luy tax jam sa sànku ba réer ab yéeg bu dee weesu ay xob jël la ngay bëgg a ñëw te jël bii biir na mboolem ku xolam ami leer day am ñu xam tuuti ñee xam jëpp ñee bañ a xam ñee xam ba xam lu ñu dul wax waaye kenn du ko jéer day xam ñu jam tuuti ñee jam jópp ñee bañ jam ñee jam ba jam rabu cey cey waaye kenn du ko diir Cheikh Babacar lam waxoon fii rek laay xala wax jaamul te bul jiima gis kii jiim ko day tax a réer subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wasalaamun ala al mursalin alhamdulilahi rabbil alamin